dans leen ak jàmm mbokku internet yi football TV nous n'a leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su vidéo mbokk yi rek wax leen euh, blouson yeeg maillot yi ak ballon original ba tey disponible sur seen football TV au 77 352 31 01 remercier bu baax ñi di jënd ñi xam dañ may boole yeneen nit muy ñi nekk fii ci réew mi ak surtout surtout bitim réew ñoo ngi may dooleel ñoo ngi may accompagner ñoo ngi jënd blouson ñoo ngi jënd maillot ñoo ngi jënd ay ballon donc merci à vous ñi ko defagul mën ngeen ñu contacter au 77 352 31 01 mbokk internet yi xibaar yi dama koy dooree fële ci Angleterre nag bu ma ko dooree foofu ci Angleterre may wax ne tey jii Edouard Mendy enfin enfin toog na lu yàgg joué tey dañ ko teg titulaire Lampard jox ko confiance ñu doon jàmmaarloo Stamford Bridge ak équipe bii di Nottingham bi xamante ne ñaxate euh, moo si titulaire kii di Kouyaté deuxième la dugal euh, la dugg autant pour boo xoolee euh, mu nekk benn match boo xam dugal ñeneen ñu ngi naan Edouard Mendy muy premier bi tey boobu moo dugal ba pare waa Chelsea ñëw nag. kii di Sterling dugal dugalaat ñu am 2-1 après Taiwo boobu ñu égalisé 2-2 ñu on a vu Kouyaté on a vu un bon bon kii di euh, Niakhaté donc euh, dans la continuité si li mu nekkoon lii bi bu mu jógee si blessure je pense que c'est pas mal euh, maintenant mën nga ko tuddee mauvais résultat peut-être que euh, contexte bi nu mu demee ak 2-1 tu te dis que un point am ko Stamford Bridge lu baax la si dëkku Chelsea mais à noter que say concurrents dañuy joué suba donte nag say concurrent ay match yu tàng la ñu am que ça soit Leicester euh, bi di jàmmaarloo bi Liverpool si je pas ak kii di Everton bi nga xamante ne mooy dalal Manchester City donc ay match loo xamante ne seen i concurrents la te bu ñu gagné mën nañ leen romb donc si zone rouge bi lañ nekk donc mu nekk benn match nul boo xam ne mën a am njëriñ ku mën a bañ a am njëriñ et donc voilà le point loolu concernant Edouard Mendy enfin on l'a vu donc euh, c'est une très bonne nouvelle pour Aliou Je suis sûrement bëgg que ko teg euh, su euh, contre Rwanda ak Bénin donc bëgg na Edouard Mendy si quand yi euh, damay jóge fii nag euh, avancé dem fële ci Allemagne Liga B mu ne fële ci Allemagne Liga B je vais parler de Sidi Sané Sidi Sané nag euh, gis ngeen que maa ngi waay am na benn vidéo restez connecté ci kanam nii dina dugg je pense 23 heures pile laa koy dugal donc restez connecté dina dinaa publier muy le dossier Sidi Sané fu mu toll nu muy demee loolu yëpp dinaa ci wax maintenant nag li mu leen bëgg wax ci vidéo mooy moom tey dugal na bi son septième but ak Salk 04 B son septième but c'est pas mal donc septième but ak euh, lii di Schalke 04 équipe B bu Schalke 04 quoi parce que moom day day alterner entre groupe bi équipe A ak équipe B bi donc restez connecté à 11 heures pile 11 heures pile 23 heures pile heure Sénégal fii ma tegal leen dossier Sidi Sané fu mu toll donc reste connecté sur seen football TV mbokk yi bu ñu avancé un peu dañuy France wax kii xamante ne nag saa moo teg bopp teg tànkam France fu Mbappé taxawee wax mu wax. xam nga donc fu beneen jour Lacazette taxawee wax mu wax parce que il a marqué vingt buts kookoy Habib Diallo suñu gaynde bi suñu attaquant bi doomu Thiès bi te nag dañoo amoon match final mën nañu ko tuddee noonu parce que dañu doon jàmmaaloo Nice bi xam ne xëy na seetu dara mais ñoom dañuy seet dara euh, après ñu def. dem fekk résultat bu réeréeré fekki naat bi xamante ne seen concurrent direct la pour mën a maintenir Ligue 1 ñu dóor naat tey doon fële Mermoz seen stade da doon dalal lii di Nice dóor 2-0 Aliou Diallo def doublé penalty ak beneen mu am 20 buts suñu gaynde bi doomu Thiès bi moom ci forme bu doy waar doy waar te actuellement euh, dina tax dina andi casse si si Aliou Cissé par rapport ak attaquant bi am na équipe nationale du Sénégal instant bi Aliou moo ngi boppam bu baax a baax foofu c'est Ligue Ligue 1 française ba entraîneur am dafa né ne kii Habib Diallo dafa war naa mën a nekk indiscutable avec l'équipe nationale du Sénégal Non, la ko waxee indiscutable maanaam ku xamante ne sept jours day joué yéen noo leen gisee euh, kii di euh, suñu gaynde bi Habib Diallo ci commentaire bi wax nañu seen xalaat ak seen gis-gis. mbokk yi on va avancer un peu cette fois-ci on va parler de Sadio Mané Sadio Mané tey équipe boobu non, noonu dalal euh, Schalke 04 man je me rappelle au temps Schalke 04 qui derby la derby la bu neex sax mais xëy na Schalke 04 amatul doole ji mu amone donc ñu dóor leen 6-0 Sadio Mané pas titulaire donc deuxième période dugub bi mu dindi temps ba tuuti mos des mu def heureusement def na benn passe décisive bu nice passe décisive boo xam ne da ngay dem bi ñu di koy relancer relancer tellement ñu ne c' est intelligent de la part de euh, Sadio Mané donc Bambal bi jël passe bi jox ko kii di Mazraoui international marocain ñu dul 6-0 mu nekk résultat bu am solo parce que ñoom benn poñ la ñu appelé doxtu te doxtu mun sax dafa gagné donc euh, ku nekk ku nekkaa ngi gagné de l' autre côté kii bu gagné kii gagné. Euh, na équipe bu Sébastien Aller wala Bellingham moom dafa dóor 5-0 d'ailleurs sax euh, muy Aller di Bellingham yi dugal nañu donc mu nekk benn benn championnat boo xamante ne nag voilà moo ngi neex espéré ko Sadio Mané dina dinañ ko teg titulaire si match yi di ñëw instant yi c'est 68 points pour Bayern euh, 67 pour Dortmund donc championnat Allemagne moom xam naa ne ñëpp intéressé nañu si euh, championnat boobu jamono bi noonu lañ gisee Sadio Mané ak temps bu tuuti bi ñu ko joxe yëpp si commentaire wax leen seen xalaat ak seen gis-gis mais qui va arrêter Nicolas Jackson suñu gaynde bi day dugal di dugal di dugal di dugal tey aussi tamit di na face à l'Athletic l'Athletic Bilbao xam nga donc mu waneeti boppam euh, suñu joueur vingt ans bi dugal ne ñaari biir dugal def doublé dugal neuvième biom ak Villarreal si Liga espagnole donc Nicolas Jackson moom aussi Oh, de saison bi sa saison fi mu ko japp fi mu ko japp ni mom bu ko téewee ni ni ni ni mom non genre prestation yi ko xaar Sénégal quoi instant yi moom franchement il est en forme de de de week-end en week-end week-end bu jot da ngay gis né ki kii fi nga ko bàyyoon mu gën liggéey donc euh, félicitations franchement tay nak ñom dañoo écrasé écraser carrément équipe bi di Atlético Bilbao mais félicitations à Nicolas Jackson franchement moom ngi ci niveau bu baax a baax moo ngi ci forme bu bu doy waar xaw ma sax yéen noo leen ko gisee ci commentaire wax leen ma si seen xalaat ak seen gis concernant kii di Nicolas Jackson.